ngay dénk sama bopp président Macky association bi nag bëgg nañu ay matériel yoo xam ne pour di liggéey di defar koñ bi di seet seetal koñ bi la te fii moom comme la wax rek jeunesse bi ñëpp benn lañ incha allahu rabbi nag dinañ ànd ak yow topp sa ginnaaw ndam rek kon soxna si jigéen ñaa ngi teer bi récépissé baa ngeeg na Ami déposé woon naa ko mais ba léegi génnagul financement yi ñu ngi lay wax bëggatuma benn financement jëm ci benn koñ te sama koñ amu ci kon dégg ma dégg bu baax. di nee nag ñu ngi leen di jébbalu guddee ndax gis engagement gis na seen Pastef ndax heure bi commentaire ba léegi ni ak engagement mënul weesu loolu kon loolu mooy li nga xamante ne mbégte la moo xam ne soxna si am na ko mi ngi leen di ziar leen tàllal bu baax a waaye bu ngeen gisee soxna si wax dëgg yàlla loolu ngeen jàmbat léegi ndax gis na ne jigéen ñi ñuy sonn gis na jigéen ñi ni ñuy souffrir gis na ni ñuy teel a fajaroo di jaayal di jaay di jàppale seen borom kër ngir bu rëy bu ñu am moo tax soxna si génn moom it fas yéene tëtt ndigam ànd ak leen liggéey boobu fas yéene leen cee jàppale ndax it na ko am lu mu man mu ne ñi nga xam ne jàpp na ne moo leen tane na jàpp na leen jàpp seen loxo teel leen ba ñu mën ba tax am na loo xam ne yàlla dogal na ko moom muy ay financement wala ay ay ay ay ay ay budget yoo xamante ne fañ koy fañ koy voté wala fañ koy jooyee loo xam fa joti moom mu mën a xëcc indi koñam yéen ñi jeunes yi nga xamante ne da ngeen engagé wu pour xeex pour suñu président Macky Sall am deuxième mandat incha allah au premier tour ñi fi wax yépp déglu nañ seeni ay waxtaan ñu ngi leen di garanti ne bu fekkente ne bu soobee yàlla président Macky sàll toogaat na ci kaw réew mi ci bopp réew mi incha allahu rabbi dinañ def lépp ba lépp lu ngeen fi jàmbat ñu taxaw ci ba lépp agsi ci yéen mbootaay bu fi ne kenn par kenn ñu ngi leen di nuyu mënuñoo jaar ñetti tur yi waaye kontaan nañ ci yéen bu baax a baax a baax a baax dañu ne yéen ñi nekk ak Abdoulaat nañ ñoo fekk si leen. ndax xam nañ ne li ñu fi wut si Abdoulaat fekk na ko mu am ko yéeg ci yéen ba pare kon Abdoulaat ñu ngi koy gërëm di ko sant ñuy toog ba kenn ku ci nekk fii ci jeunes yi nga xam dañoo engagé ñu jox leen ay postes yoo xamante ne ñoom soxla nañ ko dañu ne. fépp fu ñu dem nañ leen ñaan yéen moom ñaan moom jaratul ñu leen koy def ndax luñ fi am nañ ko ba li ci des suñu diggante ak yéen mooy waxtaan ak yéen jour élection yi na ngeen teel a xëy yéen ak seeni ay waa kër ak seeni am di jàmm na ngeen soññ kenn ku ci ne na teel a xëy dem voté ji voté ji na jël juróomi bulletin euh, juróomi bulletin ci kaw table ba jël benn enveloppe enveloppe bi na ci jël dugal ci benn Sall photo ma ngi nii fu ñu dem wan leen ko carte bi beige maro la te bu ngeen ko jëlee dugal ci biir enveloppe ba pare bu leen neexee bu leen ko jël dugalante ko ci biir bu leen neexee ngeen dugalee ko noonu ci biir kees bi lañ ko waxee démb kenn ku ci ne buy dugal enveloppe am na ñaanal président Macky Sall ñu élire ko au premier tour ci barke Serigne Touba léegi nag yéen a ko moom enveloppe bii dañ ci dégg soxna si Diop mu ngi nii dañoo bëgg ngoon gu ne ngeen toogee añ ba pare na ngeen di daje ci benn kër di ci toog yi mbaxal di waxtaan ci bilan président Macky Sall di waxtaanee naka ngeen war a voté jour le 24 février incha allah.